Porque inclusive la prensa, asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy suivre en direct sur la télé Pikine TV seen mbokk seen xarit Ibou Ndiaye mu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem fu doomu Sénégal nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew mi tey mbokk yi émission suñu mbër présenté par Ibou Ndiaye ñu ngi fii ci studio Pikine TV fas yéene waxtaanee li nga xamante ne ni moom moo di làmb fas yéene waxtaanee li nga xamante ne ni moom mooy jafe-jafe làmb waaye fas li nga xamante ne ni moom moo fi jaar ci semaine bi passé muy ay combat am solo benn bi si njëkk bokk na si diggante Diarra 2 ak ki nga xam ne moo di Albouri di neex beneen bi si topp di ki nga xamante ne nii moom moo di Franc ak ki nga xamante ne nii moom moo di Forza di ay combat yoo xam ne ay combat yu am solo la waaye ki nga xamante ne nii moom moo di euh, ki nga xam ne moo di Lac Rose kombaam tamit jaar na fi nekk ay combat yu neex a neex a neex moom ak Quench vraiment mbokk yi loolu noonu yëpp lañ bëgg waxtaanee tey fii si si Pikine TV di leen sant bu baax di gërëm di nuyu mboolem fu doomu nekk encore une fois rawatina ñi xamante ne nii ñoo toog di ñu seetaan di seetaan bi di Pikine TV di nuyu waa Pikine comme ni ma koy defee saa su nekk di nuyu fee ma dëkk nga xamante ni moom mooy waa Kaolack di leen nuyu bu baax di leen suyaat di leen jaajëfal bu baax ku nekk xam na ne xaadim comme ni ma ko waxee rek semaine bi ñu génn ay combat yu am solo moo fi am comme ni ma ko waxee woon sànq rek bokk na si Jare 2 ak ki nga xamante ne ni moom moo di Albouri ñaari xale la yoo xamante ne nii kenn ku si nekk am na foo jógee waaye kenn ku si nekk am nga foo bëgg jëm ça ne veut pas dire que ne la mais mbërum lamb la lamb la te na ko keroog si diggante moom ak Jare Jalle tamit ñu di ko encouragé bu baax a baax di félicité ki nga xamante ne nii tamit moom moo di Alboury di ko wax ne ko jàmbaar la liñ doon xaar si ñoom ñaar ñëpp def nañ ko Jalle li mu war a def yëpp def na ko xeex na bëri na def na li mu war a def mais arbitre c'est le maître du terrain bi moo joxe décision médical te ku nekk xam na ne arbitre règlement lay topp bu deret xasee ba génn te mënatuñ koo téye c'est normal arbitre bi arrêté lamb ji arrêté nañ combat boobu nag jox ki nga xamante ni moom moo di Albouri victoire moom it mu sabouré victoire am di wax rek ne leen Albouri tamit dugg na ci lamb dugg na ci lamb mu neex leen mu naqari leen Albouri dugg na ci làmb te bokk na ci làmb fi mu toll nii euh, Albouri xam na fi mu jëm bu baax a baax fi mu toll nii ndax combat bi dafa nekkoon combat capital ci moom te boo gisee mu bëreeg jara malgré daanu ko par jël mais daan na ko par avertissement par décision médical loolu ndam lu rëy la ci ki nga xam ne moom moo di Albouri waaye défaite bu rëy la ci ki nga xamante ni tamit moom moo di Diarra 2 ndax mbër tamit da dégg ndigal nangoo dégg ay conseil ku nekk xam ne ne Diarra 2 xeexkat la Diarra 2 gaynde la ndaanaan la boo ko dóoree day bëgg a fayoo waaye comme li may wax nee leen lamb lamb du yëfu gër gërie lamb pexe la Sénégal gi yëpp ak mboolem ñoo xamante ni ñoo ngi suivre lamb mën nañoo seede ne Diarra 2 jàmbaar nga champion nga xeexkat nga waaye des fois mbër day wor dañ lay séentoo fitt nga ñëw dóor loolu dafa baax si mbër waaye du wut ne saa boo taxawee rek da war a fetal jihaad loolu boo ko boo bëggee say defet dakk boo bëggee say defet arrêté faw nga changer méthode bi ngay bëre faw nga changer méthode bi ngay bëree ndax dóoral ma dóor loolu xewi na ci làmb dóoral ma dóor xewi na ci làmb dóor pour wut buntu la boo jàkkaarloog sa adversaire boo dóoree boo amee buntu demal buñ la dóoree ku boo mënee reculer reculer loolu nag ay consigne la yoo xamante ne ni ñu ngi la koy jox bu baax a baax jàmbaar nga def li nga li nga war a def yëpp indi nga doole indi nga kàttan indi nga ñaan ci làmb ji yàgg sa adversaire yëpp waaye jaam ak pexem yàlla ak ndogalam lii la yàlla dogal si yow ndax waa Pikine gi yëpp tamit génn nañ sotle la génn nañ jàppale la bu buñ sañoon booy dem booy ñëw victoire ngay indaale waaye loolu la yàlla dogal keroog di la di la di la di la di la encouragé bu baax baax di wax ni góorgóorlul nga nekk ci say entraînement te concentré wu ci sa bopp te concentré lu ci sa bopp Alboury moom xam na fi mu jógee xam na fi mu jëm xam na fi mu jógee xam na fi mu jëm ñu ngi koy ñaanal yàlla baax ndax champion la te làmb am na ci moom yaakaar làmb am na ci moom yaakaar Diarra 2 boo bëggee avancer ci lamb boo bëggee lekk xaalisu làmb faw nga def li la nit ñi wax faw nga nangu di def li la nit ñi wax Papa Sow bi écurie Parcelles di sosu ñuy taxawal ay écurie Parcelles biñ ne Papa Sow lu tax demoo fa daf ne leen du ma dem foo xam ne bu ma gaggee duñ ma gàgganti Jalle de mënoo nekk écurie daan nekkoon faak ñoo xamante ne nii da leen di daan ñu lay daan nga dem ba gisatoo fa kenn ñi fa nekk saa boo leen téyee mën ngaa bëri ñoom benn loxo benn tànk yaa leen di daan ñi fa nekk boo juumee kenn mënu gàgganti ñi fa nekk mënuñ laa yokk dara yow yaa leen mën a yokk mais ñu mënuñ laa yokk dara ñi fa nekk bu ñu amee combat yaa leen mën a chargé yow boo amee combat ñoom mënu leen a kon li la waa Pikine ñi di wax say supporter di la ko wax say nit di la ko wax mooy nga xool beneen écurie boo xamante ne mën nga faa jëm boo xam ne boo juumee la gàgganti nga dem fa ndax Pikine bëri na ay écrits yoo xamante ne nii ay kilifaa fa nekk boo demee pikin mbooloo xaj nga fa Baba Diallo ngi fa te ku mu nekkal dina def si yow xam-xam te ku mu indi boo juumee dina la wax fii ngay teg sa tànk boo demee écrit Fallaye Zil nga fa boo bëree bëri bu jaarul yoon boo juumee dina la wax fii ngay teg sa tànk boo demee tay si nga ëmm seen ngi fa et tant d'autres et tant mais munoo nekk Pikine toog si benn coin ne doo fa jóge boo bëggee lekk xaalisu làmb wala nga bëgg avancer si làmb faw nga jóge fa mbaa nit ñu jóge ci yow ndax mbër nag du dëgër bopp ay nit ñoo la sopp di ànd ak yow di la jàppale te defaloo leen dara kon li ñu lay wax danga ko war a bàyyi xel bu baax a baax loolu moom mooy waxu dëgg ndax damay wax nee naa leen li xañ jële deux dañu koy wax ndax tamit làmb rek la ñuy suivre li xañ jële deux bokk na ci bokk na ci coach bu baaxul parce que man duma ma toogal mbër 16 dem ba ci biir làmb ji ma gis ne sama adversaire bi may jàkkaar lool fausse indi muy pied gauche muy Albouri pied gauche la indi Diarra indi garde normal muy pied droite Diarra saa bu déclenché pour jàpp Albouri mbaa mu dóor Albouri Albouri da koy gis te Albouri saa bu saa saa saa bu jàkkaarloog Diarra 2 mën na koo touché ndax ouverture ba la daf ko am carrément dafa am cadre Diarra 2 carrément Albouri daf koy am ndax pied gauche bi mu jiital. mais Diarra 2 pied droite bi mu jiital li mu mënoon mooy serré ko ñuuxu ko bu Albouri déclenché déclenché crochet gauche mu daw jàpp ko. bu alburi déclenché crochet gauche mu daw jàpp ko mais saa boo seeree alburi bu alburi déclenché crochet gauche nga tëb dal fële na le doo ko mës a jàpp mais sa coach bi la toogal ban bu ne la woon seere ko comme li la ñëpp wax seereel alburi bul moytu bul moytu crochet gauche am bul ko moytu ndax alaa kulli haal din mën na ko dóor mu dal ci sa loxo bu dalee sa loxo del xaar crochet droite bi boo xaaree crochet droite bu déclenché nga daw jàppante ak moom boo moom da ngay da ngay loolu lay jëriñ ci ban mais doo toog si ban rek. yor sa butéelu ndox di ànd ak mbër mi te xamoo li nga ko war a wax lan la beneen bi ci topp mooy mbër day bëri mënin yow coach nga yaa ngi toog ci banc yaa toogal Jalle de cumikaay yaa yaa toogal Jalle de banc mais xool nga xam ne kii tànk bi mu jiital ak pied bi albiru jiital ñoom ñaar xeex rek lañ mën a def parce que parce que Jalle de xeex rek la mënoon a def te xeex bi arrangé wu ko mais woowal sa mbër dem na ci ardo woo ko nga ne ko changer le pied loo ko pied bu ko mëneeg bu ko mënul da nga ko ko da ko ko war a changé loo ndax adversaire am bi mu jàkkaar loolu xamul ndax mën na ko wala mënu ko mais yow mi nga xamante ne yow yaay coach am bu dee tarbiyu nga bëre mbaa nga tarbiyu làmb yow yaa ko war a changé loo pied bi nga xamante ne nii moom la war a bëree nga changé loo ko pied bu ko defee moom day dem jàpp Albouri facilement bu ñu jàppee nag ñoom ñaar dañuy wuure foofu nag lu fa am ñu xam ne yàlla la kon coach yi nga xamante ne nii ñooy toog si banc yi tamit non bu njëkkante toog banc wala bëgg toog banc rek bu mu tax tamit ngay toog ban pour xañ mbër mi wala ngay yàqal mbër mi ndax bëri na mbër mu perte combat mbaam coach moo ko ko xañ bëri na mbër mu perte combat am coach moo ko ko xañ bëri na mais bébé jéen bi ko jéen kay la indee bébé jéen bi ko bi ko booy bi ko booy bi ko booy kay bi ko booy kay la indee mais lim ko lim ko lim lim ko def ci wàllu technique ak xam-xam ñëpp gis nañ ko bébé jéen ku nekk xam nañ dafa gëj a compétir mais bi lamb ji diiree bi lamb ji diiree jéen euh, bi lamb ji diiree booy kay nan la ko defloo daf koo tasloo ngemb pour mu am temps de récupération parce que xam na ni at mbërëm sonn na mu yàbbiloo ko prothèse dent bi pour mbërëm récupérer làmb pexe la ak stratégie mais bu dee ñëw rek toog croiser les bras non loolu du coaching loolu du coaching mënoon nag yow jaaroo ci làmb mosoo bëre xamoo lan mooy bëre ba pare nga bëgg yóbbu mbërum làmb estaat nañ waxante dëgg kon tamit mbër yi loolu tamit dañ leen ciy balaame gis nga nit ki dafa am ñoo xamante ne ñoom ñooy ay xaritam am ñoo xam ne ñooy ay nitu làmbam booy dem làmb da ngay yóbbu say nitu làmb ku la ci bëgg bëgg la ci ku la ci mere nga xamante ne ni loolu la yàlla dogal mais bëgg lu neex ne lu neex nit ki ba tax tamit ngay yàqal sa bopp wala ngay xañ say supporter ndam ah loolu tamit bu yàggee di nga gestu bëgg gis say supporter doo leen gis kon Jalle de loolu lañ koy woo ci mu changé méthode bi muy bëree xam ne xeex rek te nekk loo xamante ne lu éternel lay doon ci làmb waaye mu changé écrit bi nga xamante ne nii fii la nekk ndax écrit bi du écrit bu ko mën a jëmale fenn loolu ñëpp xam nañ ne Ramadane dara desatu fa écrit Ramadane dara nekkatu fa et puis la boo xamante ne nii lambewuñu écrit boo xam ne mënoo nekk yow yow yaay mbër mu mag mi mais boo amee combat sa ku ñëw di seetaan si foofu ñeenti mbër la fay fekk wala ñaari mbër wala ñetti mbër ci écrit boo xamante ne écrit bu toll noonu la nga am combat bu toll ne Alboury ah bon loolu moom wax dëgg yàlla ci mbër mi la dépendre mu jël ay responsabilités am mais weñ sa loxo ne la fii ngay dem par la force loolu kenn du la ko def mais yow yaay jël sa ay responsabilité xaadim euh, euh, bu baaxee bu baaxee nga indil ma combat combat combat Diarra 2 Albouri ma wan la tuuti li nga xamante ne nii loolu la Diarra def ak li nga xamante ne nii foofu la ko Albouri dominé dëgg dëgg dëgg dëgg mu ngi noonu gis nga gis nga Diarra moo féetee à gauche moo féetee à gauche Albouri féetee droite Diarra 2 gis nga pied bi mu jiital pied droite la jiital Albouri jiital pied gauche sànni taat yi ci ginnaaw xañ ko daf koy xañ mu jàpp tànk yi sànni taat yi ci ginnaaw léegi nan la war a def nan la war a def loxo bii moo war a xañ Albouri moo war a moo war a seere Albouri loxo droite bii moo war a seere Albouri xoolal xoolal xoolal reculer bii moo dul yoon lii voilà distance bi nag la may Albouri mu ngi nii léewtoo Albouri ngi pousse ñëw gis nga xoola alburi ba tey alburi day sëgg parce que da koy muur ay tànkam carrément daf koy muur ay tànkam du jara du gis ay du gis tànk alburi parce que alburi wax nañ ko moom jox nañ ko ay conseil bu baax a baax ne ko waa ji sa tànk yi la jëm gis nga gis nga lii moo nekkul yoon gis nga mu ngi nii léegi nag fii bi bi mu de voilà dóor dóor dóor dóor dóor te alburi d'accord dóor dóor xolo xolo ouverture bi xolo ouverture bi taxawal tuuti xolo ouverture bi ki daf ko kor dafa kor fii nii fi mu toll nii Albouri daf ko kor léegi Albouri bu koree day am ouvert day am ouverture bi carrément moom li muy dóor moom mooy gën a moom mooy gën a porté que li Diallo 2 di dóor ah, parce que parce que Albouri dafa dafa dafa kor ba pare xañ Diallo xañ Diallo 2 mu mu mu jàpp Diallo Diallo korul fenn xoolal loxo loxo gauche Diallo bi xoolal loxo gauche Diallo bi ci ay Senghor la jàpp jàppul fenn Xaadim ñu dem xoolal loxo gauche bi xoolal loxo gauche bi jàppul fenn mu ngi noonu nàcc na day dem day dem day day day dem ardo lii laa wax nag xool ah, mën nga avancer avancer tuuti xaadim ñu dem parce que xeex bu sax bi mu xeex ak Albouri moo njëkkul nekk lu jaadu parce que yow mënoo ne kii daf sut moo la moo la sut ay tir yow nga taxaw moom moo la sut nga bëgg a moom xeex bu sax loolu moo njëkk a nekkul lu jaadu loolu moo njëkk a lu jaadu léegi nag ki la nga xam ne moom mooy coach bi toogal ko siège loolu ban njëriñ la am bi kiy demee ardo xoolal fii xoolal jara ba tey mu ngi xeex ba tey bàyyiwul mu ngi xeex gis nga pour moom dafa war a fayu par la force Alboury ngi ñëw normalement daf ko waroon a xaar mu déclenché xoolal sa droite bi mu daw jàpp ko mais xoolal goos bi saa bu ñëwee jara day jara arrière loolu moo njëkk loolu tamit erreur la kii day xaar mu déclenché cro mu déclenché crochet droite mu daw jàpp ko gis nga xeex bi la ko arbitre di wut loo te du dëgg si moom daf ko fay dóoraat daf ko fay dóoraat daf ko fay dóoraat xoolal songu bi sax baaxul parce que normalement booy jël tànk booy jël tànk mbër te te te yéen a ngi xeex da ko war a tibb ba mu xam ba mu xam ne tibb nga ko parce que gis nga fii xoolal al al albulee ko sut albuli mën na dugal loxoom jàpp mais jara du jàpp fi mu toll dafa wéeru rek dafa wéeru ba léegi mu ngi xeex xoolal tànk bi ni mu jege xoolal ñaari tànk yi ni mu jege mën nga koo kal mën nga koo kal ngeen bëre léegi bu ko defee adversaire bi nga jàkkaarloo yow dootul tal dóor ay bëre bëre bëre rek lay tal fi mu toll nii mais ba léegi mu ngi xeex te xoolal Alboury téye na bu dëgër moom jara fen fii la làmb ji jeexee fii la làmb ji yem parce que tamit arbitre ji règlement moom moom moom la ñuy topp règlement la ñuy topp deret ju bëri bu génnee bien vrai que ko fa mais yaramam bu tàngee bu yaramam tàngee deret ji bu ko néeri génn arbitre bi day arrêté làmb ji coach baa ngi ñii di daw di ñëw fii loolu coach dëgg dëgg dëgg mooy wax ko ne ko arrêteel xeex bi kii waroo xeex ak moom et jaral loxo bi mu téyee loxo bi mu téye loxo gauche bi mu téyee ci Senghor yi loxo boobu daf ko waroon a rotti dóor dóor gauche droite pour ñoom ñaa ñu jaxasoo mu mën a daw tibb tibb tibb ko ci suuf mais mënoo bëre koo xamante ne nii moom moo la sut nga taxaw jonn ne da ngay xeex ak moom loolu moom gëw ma ne mën nga see mën nga see jëleen mën nga see jëlee ndam moo nekkoon li nga xamante ne nii moo di combat Alboury Diarra 2 bi nii la ñàkkee par décision médicale nga xamante ni nii tamit loolu tamit xaadi war nañ see wax ak médecins yi nga xamante ne nii ñoom ñooy médecin wu CNG yi ndax mënoo doon lu toll ni CNG di ñëw ci làmb nekk ab médecin xaw ma infirmier nga xaw ma lan nga nga indiwoo lu dul coton ak alcool loolu mënta téye deret nañ waxante dëgg deret juy nàcc loolu mënu ko téye kon nag am na loo xam dañ ko war a prévoir combat Eumeu Sène Gris Bordeaux deret ju bëri génnoon moo gënoon a métti fuuf combat bi te dañoo téye deret ji ba Eumeu Sène mën a dem bëri jiwaat ak ki nga xamante ni moom moo di Gris Bordeaux mais gis nañ ne arbitre yi sax ñoom dañuy yàkkamti pour génn stade wala ñu yàkkamti pour làmb ji jeex pour a tàqalikoog ni ñu dem seen yoon te alors que làmb moo leen fi indi làmb tax ñu leen làmb tax ñu leen di fay kon nag jafe-jafe yi nga xamante ne ni moom moo nekk ci làmb jot na tamit ñi nga xam ne ñoo ko seq ñu toog waxtaanee ko ndax làmb booy dugg si am na nombre bu ñu la may boo toogee sa cumukaay am na nombre buñ am na nombre buñ la may te balaa daraa xew ñoom ñu ngi yor seen i kaye taxaw di bind pour di xool naka naka lañ naka lañ lay daggee te li ñu lay dagg doo xam fan la jëm ñu lay dagg boo ci feebaree mënoo cee faju tey jële deux fii bëri na loo xamante ne ni moom moo ci faj boppam parce que bi mu paree bi mu paree continuer dem hôpital bi mu paree moom moo moom moom moo moom moo faj boppam kon dagg bi ñuy dagg mbëri kay mën na ñoo wax fan lay dugg mais loolu yëpp liggéeyu CNG la ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo seq làmb jara dë nag jàmbar la Albouri ñu ngi koy félicité bu baax a baax moom i jàmbaar la li may wax rek bokk na ci làmb ku xool tamit jara Pikine la dëkk ku xool ni mu def estade bi keroog duy na estade bi ba mu fees dell ndax yow li la promoteur bi fay da nga dolli ba wis ko da nga dolli ba wis ko ndax c'est la première fois ci mbër mu ndaw mu jënd ci un million bi ci mbër mu ndaw mu toll nii jënd ci un million bi kon nag jaadu na tamit bu jógee ci combat bi ci promoteur yi lay des ñoom ñu xam ne kii du càppaa coliwu kenn ñu wutal ko beneen adversaire ndax tamit bëre mooy métier kenn du ko fi téye di xaar déwén nag di xaar kii bëre moom mooy métier am Diarra 2 Coly Faye combat la Diarra 2 Issa Pouye combat la Diarra 2 parce que mbër moo xamante ne nii day feesal stade mbër moo xam ne bu bu jógee pikit ki yëpp jóg kooku warta toog di chemin Issa Pouye nag jàmbaar la ndaanaan la am na lu mu fi def te Diarra 2 yaakaar naa ne warta mën a bañ bëreeg Issa Pouye danañ bàyyi tamit ñoom tamit ku ñu fi wax nga ne non diw paa la wala diw diw diw mag la Issa Pouye du du paawu kenn Jalle 2 war na bëreeg Issa Pouye jaadu na Issa Pouye toog na lu yàgg bëriwul malgré am na lu mu fi def ci làmb te li mu fi def kenn mënu ko fàtte kon Jalle 2 Issa Pouye la boo xamante ne nii combat bu na la neex lay doon bu ko promoteur yi tëggee Jalle 2 Coly Faye 2 la ndax ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ ay naanaan lañ te kenn ku si nekk da nga jógee ci defet boo ñëwee da ngay wane sa boo ñëwee da bëgg a wane sa bopp Diarra 2 Gamou Gueye ni ko noonu combat la kon tamit ci promoteurs yi lay des ñu xool ci ñett ñooñu ma leen limal adversaire am ñu ngi foofu noonu ñu xool nan lañ koy tëggalee komba pour mu bëre ndax kii dafa nekk mbër moo xamante ne nii mbër muy dundal làmb la mbër muy suqali làmb la mais xaadim comme li ma doon wax sànq rek dañoo jógee tamit ci journée boo xam ne euh, ci journée boo xam ne Gaston Production moom moo ko tëgg mu doxoon ci diggante Franc ak ki nga xamante ne nii moom moo di Forza fi mu toll ni dugg na ci cour des grand te kenn mënu ko faa génne dugg na cour des grands kenn mënu ko faa génne Forza ku daan Forza rek dugg nga cour des grands ndax Forza Forza du du du mbëru n'importe kii mbër la moo xam ne borom jom la Forza mën naa bëre Forza ku waa fas amoon ci moom yaakaar la kon tey bu ñëwee bëree ak Franc nga xool Franc tamit ak parcours bi mu def def ko si lutte simple ñëw ci lutte avec frappe def ko fa barki Dembo Ndiaye mu daan Tyson 2 nga xamante ni mbër mu jafee daan la Franc ñëw daan ko kon Franc dugg na cour des grands fi mu toll nii nag fan la Franc jëm mooy wax ji ndax dafa am cercle boo xamante ne nii boo fa xasee ba dugg dugg nga fa mënatoo dellu ginnaaw fan la Franc jëm ndax day dem bëre jeeg Sa fan la Franc jëm ndax dafay ndax ndax dafay ndax dafay ndax dafay xaar Siteu ak ak ki nga xamante ni moom moo moom moo di Lac de fan la Franc jëm. ndax dafay dangay xaar dafay xaar ki nga xamante ni moom moo moom moo di tafaatin fan la Franc jëm ndax dafay xaar ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux ak Ama Baldé te kenn mënatu koo bañ nag parce que dugg na cour des grands te mbër la Franc mbër kaamil la boo xoolee ñi nga xamante ne ni méthode bi nga xamante ne ni bëri na ko ak Forza nga xam ne Franc mbër kaamil la te mbër waada la te dafa bokk ci ñi nga xamante ne ni nag dañuy téye ji làmb mu neex leen mu naqari leen kii di Franc day téye ji làmb Sa Thiès Boy Niang Reug Reug Ama Baldé ñooñu làmb ci seen loxo lay mujjee ndax ñi fi nekk seen wàllu wëy na kon bu la neexee mën nga ma indil combat franc ak ki nga xamante ne ni moom moo di Forza ba tey bi nga xamante ne nii moom la Jared de def franc ñëw corriger loolu. voilà mu ngi noonu xoolal euh, ñu ñëw ci combat bi nga xamante ne nii Gaston production moo ko tëgg ànd seeg Makan euh, mu dox ci diggante Forza ki nga xam ne moom moo di Franc gis nga Forza moom ngeen di gis ni moo ngemboo ngemb lu weex li waaye Franc moo fee moo fi moo féetee seen ndeyjoor xoolal li ma la doon wax sànq pied bi pied bi Franc jiital muy pied droite moom la Jara de di jiital buy bëre xoolal Forza pied gauche la jiital xoolal li Jara waroon na def Forza eh, li Jara waroon na def ci diggante moo ki nga xamante ni moom moo di Albouri moom la Franc def nii xool ko seere seere gis nga parce que xam na ne Forza xeexkat la léegi dama koy seere rek dama koy seere di xaar loxo bi déclenché ñu daw jàppante wure xoolal Franc mu ngi ne teg di ko déglu da koy seere gis nga da koy serré crochet gauche bi amul benn impact droite bi lay xaar gis nga droite bi lay ah, ah jàpp na ko bal dañuy bëre nag dañuy bëre ci kaw bëre gis nga fàq mu rëpp fàq mu rëpp mu bàyyi ko mu siggi gis nga Forza mu ngi ci suuf mais dafa bëggoon palaake plaqué mais contre na ko mu jeex tàkk mu jeex tàkk mu jeex tàkk jël bu gaaw te yomb jël bu gaaw te yomb parce que booy bëreet njool booy bëreet koo xamante ni moom moo la njool moom moo la sut mais da koy seere mais tey Franc imaginez Franc tey taxawoon ne day xeex ak Forza tey xoolal daf ko téye bal ko foofu baaxul mu bàyyi takk gis nga ba tey baaxul parce que xam na ne Forza mbotkat la ñu ànd dem ci suuf ñoom ñaar mu fàq ko parce que fii Franc mënu fi woon a def dara ba tey Forza ci suuf mais mu ngi jéem a plaqué contré ko daf ko contré carrément lii moo lay wan ne nag Franc indi na doole ci combat bi. indi na doole ci combat bi indi na contact ak résistance bu baax a baax a baax ci combat bi sac combat rek maanaam nit ki mën na si jàng li nga xamante ne ni moom moo ko moom moo ko jumloo Diallo 2 ci boppam mën na xool ci combat bii nii référence nga xam mu dina xam moom ban faay la def ak lan moo ko jumloo ndax même même même même catégorie la xoolat taay bokkul ko xam ne xool Forza xam ne Forza mbër mu njool la te Forza day xeex mais day armé crochet gauche bi rek wuti wuti wuti wuti franc franc day taxaw Franc day taxaw ak gardam ba pare seere ko di xaar mu déclencher pied di di xaar mu déclencher crochet droite mu daw mu daw mu daw jàpp ko bu ko jàppee que ça soit da lay tibb sa tànk wala mu song la bal la ci kaw te loolu te te loolu la Franc def bi ñu ko defee ñu wure Franc fàq ko mu mu mu for Forzan ci suuf mais mu ngi doon jéem a plaqué mais Franc contré ko ndax daa mën a bëre làmb lamb toujours li nga répété boo ñëwee boo ñëwee def ko bu baaxul nga def leneen moo tax ma ne mbër day bëri mënin parce que mën ngaa yóbbu ne kii bu ma demee dama koy dóor mu daanu wala kii bu ma demee dama koy mbot nga dem fekk fa leneen da def leneen loolu la Franc indi ci diggante moo ki nga xamante ni moom moo di Forza daan Forza jëlle bu amul benn werante kon Franc ngi nii doomu parcelle bi nekk na mbër moo xamante ni nii mbër waada la ndax li mu fi def ci lutte simple bi ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët mu ngi perse di def ay performance am ci lutte avec frappe bi kenn mënatu koo bañ képp ku bañ Franc rek da koo ragal comme li daaloon Reug Reug Franc ak Reug du seen heure làmb ndax dama ne ñaari xale yoo xamante ni ñu ngi si yoon di dem kenn du leen teel a boole dañ leen di bàyyi ñu fekkante ci kaw kon ñoom ñaar nañ leen bàyyi ñu fekkante ci kaw te ñu jox leen ñi nga xamante ne nii ñoom la ñuy wooyee les VIP xale yi génnee leen ji ñi nga xam ne ñoom ñooy woowee seen bopp les VIP VIP wu lan la VIP ci mën a bëre wala VIP ci mën a xeex wala VIP ci am xaalis bu leen joxee xale yu mel ni Franc ñu génnee leen làmb ji kon nag jaadu na tamit waa làmb ñu reconnaître ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di xale yi rawatina xale bu mel ni Franc xale bu mel ni Quench ñooñu làmb daf leen a war a reconnaître di wax tamit ki nga xamante ni moom moo di Lagros ne ko démérité benn yoon démérité wul ndax Lagros ku ko xam-xam ne jàmbaar la ndaanaan la waaye blessure saa bu dalee sportif li muy wàññi si moom day bëri gis nga bi mu dalee Sadio Mané li mu wàññi si moom bëri na kon bi mu dalee Lagros li mu wàññi si moom tamit day bëri waaye di ko wax rek ne ko mën nga ñëwaat mën nga ñëwaat ci kaw nga gëm ne mën ngaa ñëwaat mën ñëwaat ci kaw nga gëm ne entraînement mooy defar lépp kon boo dégloo say consigne déglu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ànd ak yow rek mën ngaa ñëwaat mboole mbër mu mel ni yow tamit mën naa ñëwaat xaadim euh, ñu ngi ci émission suñu mbër comme ni mu ko doon waxee sànq rek jàngatu làmb euh, émission suñu mbër nag làmb rek la ñuy waxtaanee euh, ñu fàttali ñi ñuy seetaan mën ngeen a wéy di abonné si notre chaîne YouTube Télé Pikine TV Euh, continuer seen ay laaj sur la télé Pikine TV euh, yéen a ngi ànd ak ñun euh, ci émission suñu mbër fii ci studio Pikine TV ñuy waxtaanee lépp loo xamante ne nii làmb la ndax làmb rek moom moo ñu intéressé làmb rek moom moo ñu ñor waaye xaadim di ñaanal ñi nga xamante ne nii nag suñu ay kilifa la nekk fii ci pikin di ay autorité ku mel ni Amadou Diarra monsieur le maire Amadou jara kooku du politique du dara mais dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ñaan tamit Macky Sall moom moo deseel waa mais waa Pikine deseluñ ko li mu deseel waa Pikine mooy Pikine dafa manqué fim toll nii ay autorités yu bëree bëri waaye ku mel ni Amadou Diarra dañuy ñaan ci moom kon ko moom moo yor moom moo yor dooley fal ku ko neex ak nommé ku ko neex mu nommé ñu Amadou jara ministre parce que jàmbaar la li muy def ñëpp gis nañ ko Amadou Diarra moo mën ci mbër yi Amadou Diarra moo mën ci joueur yi moo mën ci football bi moom mën ci lépp kon ku mel noonu bu nekkee ci commune bi nekk maire commune Pikine Nord di góorgóorlu ah jot na nag président de la république delloo ko njukkal defal na ko parce que tamit Pikine ñoom ñoo soxla du Diarra nekk ministre Pikine ñoom ñoo ko soxla ndax seen doom la Pikine ñoom ñoo ko soxla ndax seen maire la te loolu yaakaar naa ne warta tob tàbbi ci nopp ñi nga xamante ñoom ñoo ay nopp yi tëx te Macky Sall dina ko dégg incha allahu rabbi di ñaanal tamit ki nga xam ne moom moo di Isaaxa Diop jeune la li liñ ko dénk métti na diis na waaye mu ngi góor góorlu mu ngi góor góorgóorlu ci li nga xamante ne nii moom la ko président dénk muy poste ministère boobu ñu ko jox mu ngi ciy góorgóorlu fépp fu mu yaakaar ne fii bu tawee dina am inondation Isaaxa mu ngi fay dem pour di nemmeeku ñooñu di xool yan saafara lañ fa war a mën a indi balaa nawet bi di ko ñaan rek ne ko waa Kaolack tamit ñu ngi koy xaar ndax dëkk la boo xamante ne nii rawatina quartier bu ñuy wax Passoire inondation sonal na leen te gannaaw tamit yow la ñu dénk wàllu woowu ñu ngi lay ñaan nga dox ci ay jéego wax ci ba inondation bañ leen sonal ci nawet bi loolu lañ ne woon tey nañ ko wax fi nga xamante ne nii moom moo di studio Pikine TV rawatina ci émission bi nga xamante ne nii moom mooy émission suñu mbër ki ko doon présenté euh, di Ibou Ndiaye ñu ngi sant ñëpp ñoo xamante ni ñu ngi ñu doon seetaan di leen gërëm euh, di ñaanal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Kaolack di woo rek encore une fois euh, euh, gouvernement bi ñu bàyyi waat xel Kaolack rawatina quartier boobu di Passoir ndax kanaal gu ndaw gi ak canal gu mag bi benn yóbbootu ci ndox te loolu bu nawet bi ñëwee dinañu sonal lool ñu ngi ciy woo autorité yëpp rawatina ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk wàllu inondation yi ñu jóg ci loolu. di ñaanal bu baax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo tëdd si lalu hôpital yi di ñaanal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk prison yàlla suñu borom génnee leen fa di ñaanal ñëpp ñoo xamante ni jàmm waaye du ki nga xamante ne nii mooy Serigne Sidi Mbacke borom xaas Serigne Sidi Mbacke borom xaas ñu ngi koy nuyu bu baax a a baax di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yaram di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yaram taxawaayam gis nañ ko bu baax a baax a baax ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax waaye du nuyu ki nga xamante ne ni moom moo di Yugo Saw sama xarit la sama wóolu la nekk fële ci Kutaal Kutaal Pël ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax ne ko gis naa ñaan yi yegsi na ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di jaajëfal ki nga xamante moom mooy DG wu Pikine TV ñu di ko wax grand Youssou nekk fële ci États-Unis di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram xaadim di la nuyu bu baax yow mi xam yaa nekk si technique bi di nuyu mbooleem ñoo xam ñu ngi doon seetaan di leen sant di leen gërëm di leen jox dig daje beneen yoon